mbokk yi ginnaaw bu ma nuyoo suñu xalif général ibnu sëñ Mansour nuyu ko ziyaara ko jox ko nuyoo njabootu suñu maam Seydi Hadji Malick Sy yëpp di fi teew maa ngi sant bu baaxa baax buuru Maroc di suñu wëllëre suñu xarit le roi Mohammed VI ci teewaayam à travers délégation bu màgg bi mu fi yónnee waaye itam participation ci bés bi muy féddali cosaan bu dox ci diggante réewu Maroc ak réewu Sénégal te l'islam nekk lien bi croix de transmission ci biir loolu yoonu Seydina Cheikh na Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu nekk lien bi dox diggante Tiwaawoon ak Faas fële ci réew Maroc kon dama tàmbalee ci di ko sant di ko gërëm ndax ba ma monsieur le maire Demba Diop Sy message bu xalif bi dama ko bind ngir ñaan ko mag moom ñu nekk parrain wu bile noonu lañu ko nangulee kon sant nañ ko gërëm ko ci lii mu def ginnaaw loolu nag nee naa am naa mbégte ak bànneex ci ñëw fii bokk ak yéen bés bii fii ci Tiwaawan di dëkku Mam Sidi Haj Malik si radiallahu taala anhu ndax kat moom Maodo may fàttali ni Maodo kàllaama pulaar la pulaar mag lañuy woowe woowee Maodo Maodo mu ànd ak respect ànd ak ñeewantal ndax li mag mata réew waaye li mag di wane si jikko kon buñ ne Maodo Malick mooy jox nañ ko wàccuwaayam kon bësaw bësam bu màgg boobu am na mbégte ak sant naa bu baax suñu borom ba mu ma mayee ma ñëw bokk ko ak yéen ma ne kon maam Maodo lépp ci dundam lu màgg la woon ndax diineem ak ngëm-ngëmam màggoon na ci suñu boroom ay jàngaleem màggoon na ndax tàggat na ay muqaddam yu bare bare ñu tasaare lislaam ci biir Sénégal kon lii mu fi bàyyi ci ginnaaw muy ndono li nekk na ndono lu yaatu loo xam ne ba tey mu ngi suuxat lislaam kon looloo waral buñ ko woowee it Seydi ñu ngi koy def ndax Seydi ci kàllaama arab la ñu koy baamtoo ki nga xam ne dafay boroom xam-xam dafay jàngale le maître wala ñu ne ko ceerno ci pulaar wala sëriñ ci wolof li moo waral ñu naan Seydi Maodo Malick si nekkoon na boroom xam-xam bu kenn dul natable nekkoon na suufi boo xam ne ci wàllu njàng ci biir xam-xamu lislaam amoon na ci maîtrise bu baax a baax ci biir zahir ak baatin nag te wane na ko nekkoon na it ku xam bu baax sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko jàngale di ko wane ba nga xam ni dundam yépp tey jii ay junni junni ay millions ngi doomu aadama ñu ngi ciy topp di ko dundal ba ci gàmmu gi nga xam ne bokk na si li mu bàyyi fii ci ginnaawam kon nag bu ñu nee Seydi Hadj Malick Sy mérité na titre boobu bu baax te ku amoon eh, li ñuy wax modestie maanaam ku wàccee woon boppam suufeel boppam waaye ku suufeel sa bopp yàlla yëkkati la ku amoon sages loolu bokkoon na ci luñ ko xamee woon doon éducateur kuy jàngale di tàggat waaye formateur waaye doon na ñaq ñaqu boppam nekkoon liggéeykat di travailleur et les nombreux muqaddam qu'il a formés et installés pour propager l'islam et la tijania en constituent une belle illustration par rapport à sa vocation de formateur. L'autre particularité de Seydi Hadj Malick Sy, c'est d'être une figure historique de notre parenté au sein d'une seule nation. Sidaaj Malick ci ay waasom ci mbokkam nekk na koo xam ne ci Sénégal mën nañu wax ni daanaka daf ko symboliser moom ci boppam ndax boo xoolee ay origine ci bundu si bi foofu la jóge ci Fuuta fële ci Podor wetu suyuma ba ci Waalo ci gaaya fi nga xamante ni foofu la fekkee gane àdduna ba ci fii ci Tiwaawoon ak Ndar boo xoolee loolu yépp da nga gis mbokkoo goo xam ne am na ko ak lëpp lu baax lu nekk fii ci Sénégal par son arbre généalogique nous savons aussi comment Il est apparenté avec la famille de l'âge Omar Foutiou, qui avait déjà prédit son arrivée sur terre, et avec la famille de Serine Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Mbake, par leur ancêtre commun, Mam Maram Mbake. kon mu mel ni moom Sénégal yëpp la bokkal bokk na ak pulaar yi njabootu El Hadj Omar Foutiou Tall maa ngi nuyu sëtam bi fi toog Thierno Nourou bokkoon na it ak sëriñ tuuba bokk genn maam muy maam Maram Mbacke a yaakaar naa ne historien yi wane nañ ko kon nag loolu dafay tënk résumé li nga xam ni moom mooy nitu yàlla bu màgg boobu Seydi Hadji Malick Sy bi nga xam ne tey ñu ngi génnewaat ay digleem ak ay jàngaleem ngir ñu mën ci toppaat kon nekkoon na nit ku màgg te xam-xamam diineem dépassé woon na frontière u ci Al Azhar di université daanaka bi gën a mag boo koy xool ci kàllaama arab ak ci wàllu lislaam def nañu benn revue En 1995, et Al-Azhar disait, je cite, Grâce à Sidaj Malik Sy, l'islam a connu son épanouissement dans ce pays qui est le Sénégal, en créant des écoles, des mosquées, des zawiyas. Il a aussi formé de brillants érudits ci se sont éparpillés dans tous les coins du pays, telle l'expansion de la lumière dans l'obscurité. loolu man waxuma ko waa Al Azhar ñoo ko wax ci atum 1995 ñu ne ginnaaw yàlla Seydi Malick Sy yaatal na l'islam ci réewam muy Sénégal bi nga xamante ni taxawaloon na ay école ay madersa taxawal na ay jumaa ak i zawiya yoo xam ne forme na ci ay muqadam yu yaatoo yaatu ñooñu tasaaroo ci biir réew mi ci bépp koñu réew mi ba nga xam ni mu mel nu lumière buy génnee ci lëndëm daal di leeral l'islam ci biir Sénégal keneen ci Maroc muy Cheikh Soukayrij Cheikh Soukayrij disait et il désignait El Hadj Malick comme le legs béni des anciennes au nouvelle génération moom benoom xam-xam boobu nekk ci Maroc nekkoon ci Maroc ñu xamee ko ci Cheikh Soukayrij la ci maam Hadj Malick nee na dafa nekkoon ndono boo xam ne bu barkeel la ndono bu barkeel bu jógee ci mag ñu njëkk ña jëm ci génération yu tey kon loolu ay témoignage la yoo xam ne rawatina nag war nañu interpeller ñun waa senegal rawatina ndaw ñi war a gëstu ngir xam dundam ak jàngaleem lan la ci def ak lan la ñu bàyyee tey jii moom Seydi Hadji Malick li ma ci bëgg a wax mooy dans un monde en perte de repère Seydi Hadji Malick Sy par ses enseignements est comme un phare au milieu d'une mer agitée un phare au milieu d'une mer agitée diffusant une lumière éclatante pour orienter les âmes vers de rivage sûrs xanaa loolu dama koy jéem a firi rek ma ne donc ci jamono jii ñu nekk di jamono bu jaxasoo jamono boo xam ne kenn xamatul lu baax ak lu bon jamono ju mel noonu nag suñu maam Seydi Hadji Malick ci ay jàngaleem dafa mel ni ku nekk ci digg géej goo xam ni géej gu jaxasoo vague yi metti temps bi baaxul gisoo mu mel nu ab faar bu leer naññ nag bu lay won yoon bi nga war a jaar ba yegg ci si tefes bu wóor boo xam ni moo lay tax a mucc loolu daf ko defoon ngir oriente xol yi ak jëmm yi yóbbu leen ci leer ma yokk si na Seydi Hadji Malick Sy nous éclaire parce qu'il possédait le savoir dafa ñuy jox leer dañu leeral ndax dafa yoroon xam-xam ko sàkk woon téye ko te ku ne xam na ne xam-xam mooy leer boo amee xam-xam da leeral sa yoon leeral yoonu ñeneen quand on est possédé par son savoir waaye bu la sa xam-xam nag wëree ba jey la su boobaa xam-xam boobu dana dem ba gëlëmal la daf lay éblouir nga daal di réer yow ci sa bopp ndax dootoo gis ndax koo xam ne kii gisatul mënatul gis yoon mënatul teg boppam ci yoon te kooka dootul mën woon kenn yoon boo xam ne nit dana ci mën a jaar ba yegg fi mu war a jëm waaye suñu boroom subhaanahu wa taala dimbale na Seydi Hadji Malick ba nga xam ne moom lumière bi mu ko may mooy lumière buy leeral yoon bi nga xam ne leeral na yoonam leeral àddunaam waaye leeral Euh, àdduna ñi nga xam ne ñoo topp ci moom kon nag li moo waral centenaire bi occasion la bu am solo non seulement ñu koy fàttali mooy commémoration waaye ñu branché na ko suñu papa ju baax ji doon waxee dañ Mansour borom daara ji branché moom dafa bëggoon branché Mansour dafa bëggoon branché <laughs> ñu ñëwaat mu branché ñu à la source de la lumière pour éclairer notre chemin en nous réappropriant les enseignements de Maodo Malick Sy li moo tax ma ne xalif bi sëñ Ababacar wareef la ci man devoir la ci man ma indil la bépp assistance bu état war a indil Tiwaawan war ko indil diine ji loolu duma ci mos a jóge ndax sunu wareef la waaye it ñu bëgg lu ñu bëgg suñu biir xol la yaakaar naa ne moo waral lii ñu fi tàmbali ay tàmbali la rek ah, jumaa ji ñoom ñoo ko def xadara tijaan bi ñoo ko def ñun dañ ci dugal suñu loxo di ci barkeelu wax naa léegi Mohamad Makhtar Cissé bi jiite kuréel gi danañ ci dugalaat suñu loxo gannaaw lañ ci defoon ngir liggéey bi mën a pare fii ak at mi jeex bu ci yàlla àndee mu jumaa joo xam ne ku ko gis dana naw tiwaawoon dana sant xalif bi dana sant ñëpp ñi ci liggéey yaakaar naa ne jumaa ji bu pare hôpital bu bees bi ma tegoon tey léegi xeer bi ànd ci ak sëñ Mansour da baax mooy hôpital boo xam ne fa la ñuy yem ci wàllu technique xarala ak matériel ñetti téeméeri lal la hôpital universitaire la ñu ngi ko tuddee bi ma xalif bi moo joxe tur wi hôpital Sidi El Hadj Malick Sy de Tivaouane incha allah fas yéene naa ko liggéey ci fukki weer ak juróom-ñett ministre de la santé docteur Marie Khemesse Ngom dana ko saytu waaye daañu defaraat nag hôpital maam Abdoul Aziz Sy Dabakh defaraat ko ba nga xam ne mbokk yi danañu am aussi fu nu fajoo wér wér xam ngeen ni maa ngi defaraat beneen autoroute boo xam ne dina jaar fii ci Tivaouane jëm Ndar loolu balaa at bi jeex bu ci yàlla àndee liggéey boobu dana tàmbali te autoroute boobu bu pare ñëw Tiwaawan dana yomb lool loolu moo doon li ma bëggoon wax xalif bi di ko sant nag bu baax di ko gërëm nga jottalil ma ko samay ngërëm sëñ Mansour maa ko koy maa ngi koy ziare lu bare bare ndax ba may jàppale wa dëgg yàlla nekkagul xalif général bam may jàppale nekkaguma président la république coloré gu rëy moo dox suñu diggante booba ñu may wutali tur te dama waxoon rek loo xam ne wax ju rafet la waaye ñu wëlbati ko ay politiciens nan dama ne sëriñ si ay simple citoyen lañu yàlla xam na ne waxuma woon simple citoyen dama ne ay citoyen lañu muy dëgg citoyen mooy ñi bokk ci réew mi di waa réew mi kon moom sëriñ bi sëñ Mansour si Djamil mu ngi koy fàttali sànq coow li bari ñu ne ndax damay ñëw Tiwaawan am déet moo ne mën a ñëw keroog ba ma ñëwee moo jël kàddu wax ci wax joo xam ne fa wax jooju fee ndax ku ko xam ci dëggoom keroog daf ne bu ñu bu ñu nekkul citoyen lan la doon kon maa ngi koy sant di ko gërëm di ko xamal ne lépp lu mu yëkkati dinañ ci dugal suñu doole ak suñu loxo dugal ci accompagnement bu état bi pour que Tivaouane nekk aussi une ville sainte boo xam ne lépp luy màndarga bu dëkk bu mag war a am dana ko am maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm ñu fi teew ñëpp waroon na jaar ci tur yi waaye guddi na te yàlla xam na ne ëllëg dama war a dem Allemagne réunion du g waaye bés bi nekk na bés bu am solo sant nañ ci bu baax gërëm bu baax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim